wa quwwati al-ardi wa haybati ash-shams wa bi sirri al-a'zami alladhi bayna adh-dhulmati wan-nur ya man kasa qulubu al-'arifin min nuri al-uluhiyya wa ya man arsala ar-riyaha nusran bayna yaday rahmatihi ilahi salli ala sayyidina muhammad salatan taftah lana biha abwab ar-ridha wat-taysir wa tuxliqu anna biha abwaaba alcharri waltaasir wa taqdi lana biha jamia alxawaij wa takuna lana biha waliyan fi dunia wal axira anta waliyuna fa nema almawla wa nema alnasir ayuha almushahiduna alkiram fi daaxili Sénégal wa fi xaariji alwatan nuraxibukum kalaada fi kulli yawmi alxamis ونقول لكم مرحبا اهلا وسهلا بكم ها نحن اليوم في انتظاركم بدقه وسرور وبعد نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته mbokk yi ñu ngi leen di ziyaara ci alxames yi di ziyaara kilifa diine yi ak kilifa aada yi di leen ñaanal yàlla jàmm ak sutura di ziyaare ñi ci hôpitaux yi te wéradi yal na leen yàlla delloo seen sago di ziyaare ñi nekk bitim réew di daan seeni doole bëgg lu ñu indil seeni njaboot yal na leen ko yàlla yombalal waaye di ñaan sunu Sénégal baladun tayyibun wa baladun jamilun wa baladun mamluun bil xayri wa rahma réew mii nga xam ne réew mu barke la réewum jàmm la ñu ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla teg loxo yal fi yàlla jéele Covid 19 bi delloo ñëpp ci seen sago bi jaahi sayyidil wujud wa alami shuhud ay mbokk yi dañ leen di fàttali rek ginnaaw biñ leen digalee ngeen di takk ay masque di sorente di bàyyi xel ci nuyoo yi. waaye di bàyyi xel ci jegeyoo bi ngeen di takk seeni masque waaye ba pare di utiliser gel alcoolique yi comme niñ koy waxee saa ne waaye it bu leen fàtte ne jullit lu ko mën a dal ci dundam dafa war a ñaan yàlla euh, ndax ñaan moo jiitu lépp addu'a u silaaxul mu'min kon ñi fas di wax bismillahi arrahmani arrahim ya kaafi bismillahi arrahmani arrahim ya shaafi juróom-ñaari yoon bu ngeen di lekk bu ngeen di naan bu ngeen di tëdd bu ngeen di yeew bu ngeen di génn bu ngeen di ñëw fa takunu aw fa yakuna hada dua hijaban masura anna yàlla dinañu ci aar sàmm ñu ci feebar bi eh, sàmm ci képp koo xam ne kii yaa ngi yeewoo ci réew mi mbokk yi ñu fas yéene ànd ak ñi ci ligne bi ci 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 ñi ànd ak ñi ci ligne bi di ñuy xaar saa su ne ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum ah, ah, allo. waaw sëñ bi doo wàññi télé bi dégg-dégg bi gën a neex. allo. allo waaw wàññi doo wàññi télé bi tuuti ñuy déggante bu baax. allo. allo. waaw bisimilah. allo allo allo. Eh, kay wàññi ma télé bi waa yow. allo. allo. waaw bismillah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Ah, sëñ bi maa ngi lay nuyu. ñu lay fay bu baax. Ah, temps yii yëpp dama doon jéem a dugg waaye yàlla def na mënuma woon jot yow. ndeysaan dëgg la. waaye li ma moo di dama nekk ci benn kër. Mm-hmm. waaye kër gi du sama kër. Mm-hmm. ma gis ñetti bâtiment yu am étage. ñetti bâtiment ñu ñu euh, nekk ci booru benn piscine bu ñu def ci biir kër gi mm-hmm. man nag ma dugg ci biir piscine bi mm-hmm. ne damay sangu mm-hmm. yàlla def bi ma duggee ba noppi mu jékki-jékki di taw ci sama kaw waaw ma xool ni ci asamaan ne waaw lii lan la am baat bu ne ma mhm. day taw mhm. ni ma yonente ngi nii ci sa kanam yow mhm. lay néeg boo noppee da ngay yéeg am lu la jox waaw mais maa gis bi gis boo ko gis nag dafa muuru ba weex tàll gisuma benn cër ci moom waaye ciru la daal muuroo euh, mm-hmm. waaw li yëpp ay garab yu la yu rafet. waaw. waaw ma daal yeewu nag ci gént. waaw baax na dinañ ci ñëw léegi incha allah. jërëjëf. jërëjëf. Euh, shukran nashkurukum gaayata shukri. li xusni mutabaatikum maana fi kulli yawmi alxamis fi barnamijikum tafsiru l axlam 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 ñu jël ko ci ligne bi si salaamaaleykum waaw sëñ bi maa ngi lay nuyu bu baax ñu ngi lay fay soxna si alhamdulilah allo waaw bismillah allo ñu ngi lay dégg bu baax soxna si waaw maa ngi lay bu baax. yàlla yàlla nangu ziar alhamdulilah. waaw dafa am ñaari gént yu ma bëggoon nga firil ma ko. bisimilah. allo. allo waaw dafa am ñaari gént yu ma bëggoon nga firil ma ko. waaw ma ne bisimilah ñu ngi lay déglu. waaw benn bi dama gént euh, sol benn sër di dem si boutique bi. nga sol benn sër. waaw mais sër bi dafa xotteeku ma dugg ci boutique bi jënd li may jënd ba pare. génn di dem nit ñi di ma reetaan. Mm-hmm. allo. waaw ñu lay déglu waaw. waaw sër bi nag dafa xotteeku nit ñi di reetaan ba may ñibbi. Mm-hmm. beneen bi. Mm-hmm. allo. waaw. waaw beneen bi damay gént di faral di sëy mais aw ma jëkkër. ngay gént di farataal. faral di sëy waa te jëkkër loolu laa nga dimbali ma si. te amagoo borom kër. non non. waaye dinañ ci ñëw léegi incha allah. incha allah maa ngi lay taaxir. baax na jërëjëf. Ah. jërëjëf. Euh, ma zilna fi intidaarikum salaamaaleykum wa rahmatullah. allo. allo. allo. waaw sëñ bi ñu ngi lay waaw. allo allo. ñu lay dégg waaleykum salaam. allo. allo waa ñu ngi dégg. sëñ yàlla yàlla nangu ziar alhamdulilah. allo dama lay dégg tuuti nag. waaw ñu ngi lay dégg bu baax ñun. allo. waaw ñu ngi lay déglu bu baax. yow la Paa Firi Gént. waaw. waaw man ah, dafa amoon benn gent bu ma bëggoon nga firil ma ko. waaw. Ah, dafa amoon sama benn xarit bu ma àndaloon. Mm-hmm. allo. waaw ñu ngi dégg. waaw ma yoroon benn oto ñuy daw ba ci yàgg mu ne ma xaaral ñu wut ay client fee. nga wut. ñu wut ay client ñu wut ay client yu nu yóbbaale. Mm-hmm. léegi ma bàyyi ko oto bi léegi moom mu continué ak oto mm-hmm. man ma jël sama yoonu bopp di dem. bi mm-hmm. may dem ba sori après euh, ma gis génn géej daal. ma ne yoon bi ma jëm de du foofu après ma dëppaat bi ma dëppaatee di dem ba ci yàgg rek géej gi moom moo daw wër ma. Mm-hmm. loolu nag euh, jaaxal ma trop ma la doon laaj daal ba xam. géej gi moo la wër. waaw géej gi moom jotuma cee dugg mais damaa seen géej gi ma tourné ma ne yoon di ma jëm de du foof damaa tourné waat mais bi ma tourné rek ndox mi moo daw wër ma moom. Mm-hmm. léegi ma dal di nekk biir ndox mi ma ne comme que demee ne nii xaaral ma as ci sangu tooti fi ma ase ba sangu bay pare rek foofu la bët sete daal. Mm-hmm. jërëjëf. jërëjëf. shukran sanaati bi dalika incha allah 88 628 04 05 salaamaaleykum allo allo allo allo allo waa ñu jëlaat kenn ci ci ligne bi allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw soxna si ñu ngi lay ziar. papa maa ngi lay delloo ziar. bismillah. man de damaa amoon gént bu ma jaaxal. ndax damaa ëmb ba dis tollu diggante. Mm-hmm. waaw. allo. waaw maa ngi dégg. allo léegi nag ma barki démb ma tëdd gént am doom. Mm-hmm. bi ma amee doom ma gis muy jigéen ma kontaan. Mm-hmm. démb ci guddi ma tëdd tëddaat gént. Mm-hmm. démb nag bi ma géntee dafa nekk góor mais ma am lu ma naqari ci biir gént gi daal kontaanuma ci dara daal. ma ne woon naa woote laajte ko. loolu daal moo nekkoon sama soxla. Mm-hmm. waaw allo. waaw ah, loolu la woon. waaw jërëjëf incha allah dinañ ci ñëw léegi. sanaati bi bayaani zalika xaalan incha allah ñi jël keneen ki ci topp salaamaaleykum wa rahmatullah. allo. allo. waaw bismillah allo allo bismillah waaw nantazirkum insha allah eh, bi hadayn arraqmayn kal aadati fi kulli yawm alxamis salaamaaleykum allo allo waaw allo allo bismillah allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam bisimilah. ñu ngi lay dégg. allo. ah sëriñ bi ziare naa la. man dama am ñaari gént yu ma doon laajte. waaw. Euh, benn bi dama euh, may doon allo may ànd ak. allo dama gënte. wàññil bi ñu déggante bu baax. allo. benn bi may dem may ànd ak benn benn xarit xale ni ñuy dem ma ngi jaan yeneen jaan yu bari. sama xarit bi dama jaani ndax dina matte ma ne bu ñu leen laal bu ñu leen laal rek ñuy daw noonu nag gis jaani yi jaani yu bare mhm. ci biir gante bi nag ma daal daanu jóge suma lal daanu ci suuf ma gaañu ci bopp bi fii loolu laa bëggoon laaj ca beneen bi ma gënt suma yaram bi nii ay sax di ci génn sax yu weex di ci génn beneen bi suma loxo yi ni ñaari lo mbagg yi mel ni ay loxo yi mel ni ay ay ay ay um, uh, mbaax moo ci génn ay ay mbax ay max gént boobu ñett ñetti gént yooyu daal ñoo ma jaaxal sëriñ bi mm-hmm. dina ci ñëw léegi incha allah quatre-vingt-huit six cent vingt-huit zéro quatre zéro cinq wala quatre-vingt-huit six cent vingt-huit soixante-cinq soixante-cinq salaamaaleykum allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Safta FM. Mm-hmm. allo. waaw allo bisimilah. kilifa gi ñu ngi ziar yal na yàlla na ngi ziar bisimilah. ndax am benn gént bu ma doon bëggoon nga firil ma bu ma xawoon jaaxal tuuti. waaw bisimilah. dafa am benn kilifa gu ñëpp xam ci réew mi. Mm-hmm. def mu génnoon àdduna fan yële ci ginnaaw. Mm-hmm. yàlla def may nelaw gént ni ñu nekk yàlla def ñu nekkaat génn àdduna ñu koy robi allo waaw mu génn àdduna ñu koy robi ñu dem ba ci yoon bi koor bi wadd mm-hmm. ñu foraat ka di dem ñu dem ba àgg gis ni dañu dañu xotti biir bi am luñ ci génnee gént googu daan toujours daf may répété quoi ñu xotti biiram ñu xool ci biiram am lu ñu génnee ci biir bi. te ci hmm. benn jigéen la. li ci génnee lan la. xol bi lañ génne ak res bi. xol bi. ak res bi. Hmm. te gént gént boobu li muy ñëwaat. Hmm. Euh, su mën a ñëwaat indil ñu ma baqa min al xulmi la kaana xayran ala kulli xaal wa li kulli xulmin mabda wa intiha salaamaaleykum aleykum salaam rahmatullah mbokk mi ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax alhamdulilah naka tey jamono alhamdulilah dañoo amoon euh, gént yoo xam ne bëggan kon ci dimbali waaw mm-hmm. ah, benn bi dañuy faral di gént armoire armoire bu ubbe armoire benn bi si tam waaw ah, armoire bu ubbe nii Mm-hmm. sama néeg beneen bi ci des itam gis naa mu ubbeeku. Mm-hmm. Euh, ñaareelu gént bi di gént di nekk sa kër di bale. Mm-hmm. Euh, bi ci desit mooy am benn mag bu ma dëkkaloon suñu dëkk euh, faatu na bu yàgg nag waaye ma gis ci gént gi ñu ni moom moo faatu ñu indi ko dugal ko ci benn oto indi koor bi. ñu teg ko nii ñu ni man nag yoo lañ def imam bi man maa koy jullee maa naa joxe ñaan foofu nag joxe naa ñaan faatiha ginnaaw auzu billaahi mina seytaani rajiim yi ma joxe faatiha ak ñett lixlaas ak fàllexe ak naasi loolu daal laa joxe ci ñaan ma noonu la ca ko faatoon bu yàgg daal ñu teg koor bi mm-hmm. baax na jërëjëf jërëjëf dinañ ci ñëw léegi incha allah eh, shukran kal aadati li xusni mutabaatikum maana fi kulli yawmi alxamis 88 628 04 05 ñu jël keneen ki ci ligne bi salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. Oustaz noo def. ñu ngi fi rek sant yàlla bu baax. ma ne damaa am benn gént ma bëggoon laajte. Mm-hmm. allo. waaw ñu ngi dégg. allo. allo. waaw ñu ngi lay dégg bu baax. mu ne dama géntoon deret di génn ci man. Mm. deret di génn ci yow. waaw di génn ci man waaw. Mm-hmm. affaire mu jaaxal ma trop ma ne xaaral ma woote laajte. dinañ ci ñëw léegi incha allah shukran 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 salaamaaleykum eh, allo allo allo allo allo waaw ñu jël keneen ki ci topp salaamaaleykum allo salaamaaleykum salaam wa rahmatullah salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah allo allo waaw ñu ngi lay dégg allo ñu ngi lay dégg bu baax allo allo waaw ma ne ñu ngi lay dégg bu baax allo waaw xam naa ñu ñoo ñoom ñooñu. Eh, min ko ko no woodi komi hoyde eeyi eeyi eh, jooni komi mi miɗo seppayno tan mi yii ngayuri yeesam aɗa mi yii ngayuri yeesam a ah, yiya ngayuri yeeso ma eeyi eh, komi mhm. ɓaano mi yii ngayiru ndi mi huli eeyi komi huli ɗon mi janngi ayatal coursi mi rutti eeyi yo eeyi alo mm-hmm. eeyi bisimilla ma mi yinno noon ya wallange numéro ma o eeyi eh, jannga ayatal kursi na a janngi ayatal kursi eyi eh, mi janngi ayatal kursi o mm-hmm. eeyi eh, moƴƴi a yiiɗi numéro na eyi mi yiɗo numéro o eyi jaggu ligne o wonɗo o totta ma numéro o jooni ne aw ah. inchallah aywa ki ci régie bi dina la jox numéro bi léegi incha allah uh, wa ma zilna xata al an nutaabicukum kama kuntum tutaabicuunana fi kulli yawmi alxamis 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 ñu jël keneen ci ligne bi salaamaaleykum allo allo waaw dina àndaat ak ñun ci ci kanam léegi ñu ngi xaal eh, keneen ki ci ligne bi salaamaaleykum allo eh, mi ngi noonu nashkurukum xayata shukri eh, ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw Seydou Dieng. waaw. waaw bi la. bismillah. da ngay wàññi sa bi ñu déggante bu baax. Ah. man da ngay wàññi sa télé ñu déggante bu baax alo waaw. allo. allo. waaw ñu jëlaat keneen ki ci ligne bi. allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah allo bismillah allo ñu ngi leen di dégg bu baax doon waaleykum salaam papa waaw bismillah Pape Djilaat naa di musafir gent waaw bismillah ay musafir gent naat la eh, demande for Gabon. Gabon. si won daal won won koyɗo won koyɗo gonngel koyɗinomi ɗo hennen eyyi eh, ko bisimilla ma eyi eh, mbiɗo wone e guenare mbiɗo jangga alam nasara ana jangga alam nasara eyi e nder guenare eyyi eh, joni no jaltumɗe nak kawrumen eh, e damate debbo goto omo ɓooli comtude daneji ɗal kawruɗa e hollon e debbo omo ɓoorni comci danejo debbo boɗejo ko omo ɓoorni comci danejo debbo omo ɓoorni eh, damal guenale o wi mhm. kam joni ɓayde joni juuɗe maari takki leydi comme jinan gara joni ɓayde gallamin woɗɗani guenaɗo yo jeer coɗɗa lorɗa rawa puɗɗa yaade galle maɗa quoi eyyi mhm. allo eyyi miɗa heeɗima jewɗo wino mbimino min kam ɓe tawi ɗon wawi oppi a wiɗa yumdal après mbimi ala a wiɗa tan jeeha joni comme jinoɗa pirnama ɗum ɗa mhm. e d' accord eyi gabon noddanmami eyyi eh, moƴƴi inchallah mamin ngar hen joni inchallah moƴƴi a jarama eh, mi ngi noonu 88 628 05 04 cinq wala 88 628 65 65 ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum allo allo salaamaaleykum waaw soxna si ñu ngi lay bismillah allo allo waaw. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. allo. allo waaw ñu ngi lay dégg so bu baax soxna si. allo. maanaam ñu ngi lay dégg bu baax bismillah. allo. asalaamaaleykum. salaam. allo papa. waaw maanaam ñu ngi lay dégg bu baax. waaw bisimilah man de gént bu ma jaaxal. bisimilah. damaa gént gént bu njëkk bi dama gént am ay seex. Mm-hmm. bi ma géntee am ay seex muy ñaari doom yu góor am naa ay seex nag waaye dama gént am yeneen seex. muy mm-hmm. ñaari doom yu góor. Mm-hmm. ma ne kii sëñ eh, Seydina Mohamed laa koy tudde keneen ki ma ne sëñ Fallou. foofu nag laa yeewoo waaye beneen gént bi ci def bi ma jaaxal. sama benn doom bu jigéen. moom laa gént mu nekk ci oto benn njaganjaay bu weex njaganjaay bi dëpp bi njaganjaay bi dëppoo moom mi ngi ci biir ak benn xaritam di yuuxu man ma nekk ci biti di yuuxu ma nit pour ñu dimbali ma di yuuxu kaay leen dimbali ma ba mu yàgg may ma bàyyi yuuxu yi di tudd turu yàlla mhm. di tudd turu yàlla laa ilaaha illallah foofu daal laa koy tuddee laa koy tuddee ba yeewu loolu daal laa bëggoon ko ma ko firil oto bi daa këpp. waaw kay. jërëjëf dinañ ci ñëw. jërëjëf waay jërëjëf jërëjëf. jërëjëf euh, sanaati bi zalika incha allah 88 euh, euh, jël ki ci ligne bi allo allo allo allo. waaw sëñ bi ñu ngi lay ziar allo allo. waaw ñu ngi lay dégg bu baax bisimilah. allo. allo ñu ngi lay dégg bu baax. allo. allo. allo. waaw bisimilah. waaw maa ngi laaj maa ngi laaj benn gént rek boo xam dafa ma xaw a jaaxal. waaw. nga toog ci ba mu yàgg rek lu mel ne géttu ñay gétt mm. ay ñay yu bari jiitlante woo dugg si sa biir kër mm. loolu daal laay laaj loo ma ci mën a leeral ñu dugg sa kër su ma mënoon am sa numéro nag ci suuf aussi dina ma gënal waaw téye ligne bi dinañ la ko jox léegi incha allah shukran nat bi zalika xaalan incha allah حتى الآن ما زلنا في انتظاركم بهذين الرقمين إن شاء الله 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 allo. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu delloo ñu ngi ziar. yal na yàlla nangu ziar alhamdulilah. Ah, dama amoon gént bu ma doon laaj. Mhm, bismillah. amoon gént bu ma doon laaj. waaw ma ne ñu ngi dégg. waaw man dama gént. Mhm. ma mu ma ne damay tukki daal. Mhm. léegi oto bi ma war a jël daa ma ne horaire la waaye heure waxtu bu ma bëggee dem rek pour dugg si oto bi dañ ma naan oto bi fees na heure bu ma bëggee dem ñu ne ma oto bi fees na mu jëntal gi ma ne xaaral ma yóbbu sama bagage yi ndax su ma demee fekk fa oto ba ma war a yóbbu ndax oto boobu daf ma romb ci buntu kër gi ma xam ne oto bi amu nit. ma dem ñu ne ma fees na léegi mu am mu am benn oto bu romb waaye oto bi jigéen moo koy dawal. Mhm. nekk te yeneen moroomu jigéenam. léegi ma gaare leen dugg ci oto bi. de ma ci duggee daal mu mel ne ay bandi lañ dañ dañ maa bëgg a fexeel. léegi sama saag bi ma yoroon amoon na xaalis ay billets ñu xool saag bi mais ñoom xaalis bi mu nekk gisuñu ko. après ñuy dem di dem di dem di dem mujj gi ma toog daal ànd ak dal ma ne man daal naa toog rek yàlla baax na jàpp ci yàlla. Mm-hmm. mais dañuy dem ba ba ba ñu àgg fu mu jëm mujj bi ñu ne kii daal dañoo sonn dañ ko wàccee mu dem te damay faral samay gént yu bëri suma ma géntee damay gis ne daal ay jigéen laa ci nekkal mais lu si bëri daal dañ may war ci biir gént gi. Mm-hmm. allo. allo waaw maa ngi dégg bu baax. waaw ma ne lu ci bëri daal su ma géntee dama koy damay gis ne damay sekk ak ay jigéen mais lu ci bari daal day dem ba ci digg ba daal mu mel ne dañ may dañuy indi ay tànk war. waaw te dama am doom bu jigéen tey ba ma ko ëmbee dama daan gént ay gént yu yéeme daal mm-hmm. benn bi dama gént euh, nekk euh, si di dox daal ci mbedd ànd ak kenn ku jigéen koo xam ne ñoo ko koñ mu daal di ma xool ci jaww ji seet fi ay photo sëriñ sëriñ baa maam Maodo sëriñ yëpp daal sëriñ yu baax yëpp ma ne ko mm-hmm. yow yaa ngi gis nekk ci kaw asamaan si mu ne ma lan mu ne ma ne ko xool sëriñ yi yëpp après mu gis leen beneen bi tamit si sama biir ëmb bi tamit damaa dem ci sage-femme mu may mu may visite ma mu may visite ba mu jékki-jékki mel ne dañ damaa gis benn xale bu weex tàll am ay laas sol yëre bu weex tàll taxaw man moom sage-femme bi gisu ko maa ko gis léegi bi ma ko gisee mu yuuxu ma ne sage-femme am na ko taxaw am na ko taxaw mu geesu rek après loolu loolu dem après foofu daal laa laa yeewoo. Mm-hmm. baax na dinañ ci ñëw léegi incha allah allo allo euh, ñu jël keneen ki ci ligne bi salaamaaleykum allo allo euh, waaw bismillah allo allo waaw ñu ngi leen di bàyyi xel ci leen bi ba léegi rek euh, mën ngeen ànd ak ñun ci 88 628 04 05 wala 88 allo allo bismillah allo allo waaw bismillah salaamaaleykum allo waa ñu jël ki ci topp salaamaaleykum allo allo. allo. waaw bisimilah. waa ñu jël keneen ki ci topp. asalaamaaleykum. allo. allo waa xam naa liñ bi bari ay xat-xat rek euh, ñu ngi leen di xaar bate ci ligne bi salaamaaleykum allo allo waaw ñu ngi fi rek sant yàlla bu baax maa ngi ziar yàlla na yàlla nangu ziar dégg ma la bu baax papa mun nga yokk sa baax ah wàññi sa télé tuuti ñu déggante bu baax allo. waaw damaa géntoon benn euh, damaa gént. Mhm. yaa ngi mhm. gént ma nekk ak sama copain. Euh, ñun ñaar suñu jour mariage ma uf benn xale ku ñëw ne ma waa soxna si am sa borom kër ma ne la moo ngi yi xale la woon mais instant yi nii seen kër te magum jëmm la affaire bi daal loolu moo ma jaaxal est-ce nga yor xale. Hmm? da nga yor xale bu ndaw. ma ne la xale bi moo yor uuf ko moo nekk sama borom kër mais instant yooyu xale la woon temps yi mu nekkee xale. Hmm. moo nekk noonu mais jamono jii nii mu ngi seen kër magum jëm la. waaw baax na dinañ ci ñëw léegi incha allah. allo. waa xam naa dañuy ñëw ci bataaxal yi rek incha allah yi nga xam ne fekk nañ ko fi seeni borom di ko laaj bëgg ñu di ci ay bayaanaat euh, xaarandi mbokk yi kal aadati bi haadayn raqmayn euh, mahma ittasaltum bina sa tajidunana xaadiran mbokk yi ñu ñëw ci bataaxal bu njëkk bi mbokk mi yéene ko fi di ko laaj kii dafay laaj laaj bu ko jaaxal mbokk mi kii neen dafa nekk ci biir këram waaye nag kër gi mu nekk neenu du këru boppam mu gis ñetti bâtiment waaye ci ñetti bâtiment yi am na pisin ci biir nee na mu dugg ci biir piscine bi sangu fa nee bi mu sangoo ba génn dafa mel ni daal <clears throat> dafa gis taw bi di wàcc euh, ci biir taw bi nee na mu mel ni dañ ko ne xoolal ci kaw asamaan si mu xool ci kaw gis ndox mi di wàcc ci biir ndox moomu mu gis ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa neena mi ngi muuru jëmmam yëpp waaye nag nee gisul jëmm ji nee fi mu nekkoon bor boobu ay garab yu bari ñoo fa sax awalan qabla kulli cheyin hunaka amrayni ru'yatu lmaai wa almatar alladi yanzilu alayhi wa ru'yatu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis ndox mu wàcc sa kaw yiw la almaau fatxun almaau yusrun almaau xayrun wa kazalika al matar nuzulu al matar ala al insan xayrun wa barakatun wa yusrun ndox mi wàcc ndoxu taw di wàcc sa kaw baax na waaye bi gën a baax mooy ru'yatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam gis sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci gént fiihi fiiha qadaau xaajatin walaw kunta maridan sa tajidu shifaan walaw kunta faqiran sa takunu ganiyan walaw kunta fi diqin shadidin inchaa allahu sa takunu bi xayrin wa barakatin wa rahma gis rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci gént soo feebaroon dinga nga wér soo nekkoon ci jafe-jafe àdduna dina deñ soo jaaxlee sa jaaxle dina deñ soo nekkee di lijjanti lu jafe dana yomb loo yootu dootul jafe loo teg sa loxo yàlla mi tëral mbir yi na mu yelloo tëddee tegal la ci loxo kon muy la am solo lool waaye man ra'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam soo gisee sayyidina muhammad génneel tàndarma nga saraxe ko mu jara bàyyi xel lool yi ñu bàyyi ci xel beneen bi ci tegu kii neen dafa gént Euh, muuroo sër sër bu xotteeku mu génn ñi di ko ree alsawbu almumazzaq fi lxulmi xayrun min sawbin jamilin aljamalu ma fi ljamali xayrun yére bu xotteeku tilim baax na moo gën fuuf yére bu rafet jekk baaxul amma alladina yadxakunaha addaxku yatagayaru anha faraxan wa surur gént di reetaan baaxul waaye gént ñi di la ree baax na benn bi nee na dafa gént di sëy te amugul borom kër loolu kasiran li ëpp ci li koy def muy àndandoo jigéen dina gént àndandoo di sëy ak góor sawaan muy koo xam muy sa dëkkandoo ay sa am di jàmm bi haasihi sifaati ci melokaan yooyu yi ci ëpp noonu lay tëddee eh, mu bàyyi ci xel waaye dañ leen di fàttali rek haatayni sadaqatayn ñaari sarax yi ngeen bàyyi ci xel ma baynal qamxi wa durrati diggante mboq ak dugub man wajada xaajatan min xawaaiji dunyawiyati su ngeen jógee am soxla bu leen jaaxal génne leen mboq ñaari kilo dugub ñaari kilo fatiha bu sell ida jaa nasrullahi juróom-ñaari yoon beneen bi ci tegu kii neen dafa ànd ak xaritam ñuy wër oto bu ñu dugg nee na oto bi mu mujjee gis daal ay jigéen ñoo ci nekk wala boog ay nit ñu bari ñoo ci nekk nee na mu jékki-jékki dugg ci oto bi waaye dafa mujj daal wàcc oto bi nee di dox ba si yàgg gis géej mu mel ni ndox mi da ko wër mu nekk ci biir di sangu ndox bu la wëree xayrun soo sangoo ci biir xayrun su sottee ko sa kaw xayrun almaa u xayrun almaa u fatxun almaa u yusrun ndox alal la ubbeeku la am na solo lool beneen bi ci tegu ki neen dafa gént ëmb mu gént mucc kontaan ci lool jëkk bi mucc kontaan ci lool muy laaj lu muy tegtale beneen bi ci tegu ne ne su ma mu gisaat mu amaat góor mu merci lool waaye ndax bu jigéen ba bu mu jëkkoon am jigéen la mu kontaan ci bi ñëw mu nekk góor mu mer ci ah, haatayni haadayn al amrayni al muxtalifayn ah, ma eh, ñaari mbir yi lan mooy seen seeni mbir boo amee doom bu jigéen nga kontaan soo amee doom bu góor nga mer mu yéeme lool li muy tegtale tegtalewul sax mbir yi am doom wala ñàkk am doom li am solo moo fi ma bayna zakar wal unsa doom bu jigéen nga am ko kontaan mooy dinga nga nit koo xam ne kii seen la ngeen di seq yéen ñaar dana am solo dana baax waaye bu loolu weesoo dina am keneen ko jëflanteel ku kooku boo xam ne bii naqar nga cee am mooy représenté ma bayna al bint euh, wal walad diggante xale bu jigéen booy door a am mu nekk nenne nga kontaan ci ak xale bu góor nga am ko muy nenne nga merci ci eh, da ngay jëflanteeg ñaari nit kii mbiram di nga ci kontaan keneen ka ca des seeni mbir du neex lool ba boo moytuwul naqar nga ci jële nañ ci bàyyi xel mbokk mi ki ne dafa gént di dox ànd ak xale yor benn xale bu ndaw nee na ay jaan topp leen mu mel ni dañ leen di dàq mu daanu ci suuf nee na mooy bu njëkk bi assaabin fi lxulmi ma fi dalika xayr jaan dafa am hunaka bayaanayni fi sobaan assobaanu sagir wa sobaanu lkabir amrayni muxtalifayni diggante jaan bu ndaw ak jaan bu mag wuuti na jaan bu reye ba baaxul su dee jaan bu ndaw nag baax na mbiri njaboot la nañ ci bàyyi xel amma assuquutu ala al ard imraatun saqatat ala ard ma fi dalika xayrun wa kadalika ar rajul ida saqata ala ard fa ma fi dalika xayrun góor gu daanu baaxul jigéen bu daanoo baaxul nañ ci bàyyi xel ki ne dafa gént sax yi eh, ñi génn ci yaramam ay sax bu ñuy génn ci sa yaram wala leneen lu dul sax génn sa yaram baax na li muy tegtale mooy bada ati suubat te taxafaf shay'an fa shay'an jafe-jafe yaa ngi commencé di wàññeeku ndànk-ndànk ci sa dund nit su géntee ay sax wala ay yeneeni mbir yu dul sax di génn ci yaramam na jàppal na jàpp ni at moomu balaa jeex yàlla dina la wàññil say jafe-jafe wàññil la say xat-xat ak say tolof-tolof euh, kii nee na dafa gént kilifa gu mag mu génn àdduna nee na mu gis ko mu mel ni dafa deewaat ñu di ko préparer pour denc ko waaye li ko jaaxal daal mooy dañoo dindi xol bi ak res bi fa taajaba bi dalika ijaban aziman mu jaaxle ci lool muy laaj ma bayaanu zalik nit su génne àdduna ñu tëral ko génne xol bi génne resam tekkiwul ne xol bi la ñuy génne wala res bi déedéet am na ñuy wuññi suturaam ci ginnaawam baada an raxala ila jiwaari rabbihi bi mu wuyjee boromam ba pare am na ñuy topp ci ginnaawam di wuññi suturaam wala ñi def ci ginnaawam naka sadul noona wala ñi yàq alalam wala boog ndénkaay yi mu fi bàyyi woon ñu wëlbati doxole ko beneen safaan bu bokkul ak ba mu bëggoon hada huwa bayaanu xurujul qalbi uh, fi jismil insaan lii mooy tegtale xol bu ñu génnee ci nit wala res la mu dencoon ci dundam indama kaana fi qaydil xayaat ba muy dundu lamu fi bàyyi woon ci ginnaawam ak ndénkaay alwasaaya bëgg ñu toppatool ko ko wuññi nañu suturaam yàq la mu fi bàyyi woon ñàkk topp it fi bàyyi woon comme ndigal njaboot gi it na ko bëggee woon demewul noonu loolu mooy tegtale xol bi ñuy génnee agresse bi baada wafaatihi mbokk yi ñi ñëw ci ki ci topp kii dafa gis kilifa gu mag bu génn àdduna na mu gis ko ci yoon ñiy dox nee na li ko yéem daal mooy dafa gis armoire bu ñu ubbi yenn saay ñu tëjaat ko gént na it di bale armoire bu ñu ubbi di ko tëj da ñëw ba ci buntu yaakaar war teg sa loxo ca yaakaar ga yaakaar ga tas mooy armoire bu ñuy ubbi di ko tëj amaa bale baaxul ci góor baaxul ci jigéen baaxul ci benn fànna gént di bale daal min akabiri sobaat bokkul baaxul ci jafe-jafe yi gën a métti la bokk euh, beneen bi ci tegu kii neen dafa gént kilifa gu génn àdduna ñii ne ko moom moo koy jullee moo koy ñaanal nee na gént na daal ci biir ñaan gi mu jàng fatiha ixlaas falaki ak naasi wa ala kulli xaal am na solo lool jàng ko baax na euh, ñaan ci baax na xayrun adduaau silaaxul mumin eh, yooyu mu jàng benn bu ci nekk baax na eh, beneen bi ci tegu mbokk mi kii ne dafa gént deret yu bari di génn ci moom addamu xuznun amiq wa diqun shadid deretu guddi naqar la rawaat leen nag buy génn ci nit ma fi dalika xayrun ala kulli xaal Euh, du la gën nañ ci bàyyi xel kii nee na oɗo ko haalpulaar o yo mana ngayoori no jokkiimo walla o yiidemo o huli o janngi kursi yi kii neen dafa gis gaynde mu tiit ci lool di jàng ayatul kursi yi ru'yatul asadi al asadu xayrun man ra'a asadan fi xulmihi falyaalam annahu sa yajidu fatxan aziman wa sa yajidu taqadduman fi xayaatihi soo géntee gis gaynde yokkute la yiw la am na solo lool beneen bi ci tegu mooy gént di jàng ayatul kursi yi ayatul kursi huwa markazu kulli shay ala kulli xaal ayatul kursi yi di ko jàng dafa am solo mbokk yi ayatul kursi yi xel ci ñi nga xam ne ñoo koy jëfandikoo saa waxtu yi gën ci jëfandikoo ayatul kursi yi waxtu yëpp baax na naam waaye bi ñu gën a taamu ci waxtu yi muy bayna salaatil maghrib wa salaatil isha yi diggante timis ak waxtu boobu sopp nañ ko lool ndax waxtu la bu am secret bu rëy waxtu la boo xam ne bii ijaaba mi ngi ci ñaan gu nangu mi ngi ci dee leen ci bàyyi xel lu waaye di ñaan mbokk yi na ko ñaan diggante timis ak gee in kaana xayran su de lu baax dee ko ñaan diggante timis ak gee mahma kasura al amru nu mbir mi mën a tëdde ak nu lu mu bari bari bari lu mu rëy rëy rëy dugal ko ci diggante timis ak gee soo ko ci defee incha allah dinga ci bis di nga ci gis ijabatan waadihatan ala kulli xaal euh, waxtu waam solo la nañ ci bàyyi xel bu baax ma fi ma bayna salaat al maghribi wa salaat al ishaa'i diggante timis ak gee ki gént euh, muy jàng alam nashrah mooy bu jëkk bi alam nashrah gént ko di ko jàng yiw la waaye li muy nekk-nekk yiw saar bi aaya bu ci nekk ci saar bi am na njariñu boppam biñ ciy jëkk a wax rekk bu gën a gàtt te gën a leeral balaa ñuy sori muy alam nasharah rek boo ko jëlee nga wérde ko neuf cent wala book six cent soixante-six ñaar yooyu boo ci jël baax na ku am xol buy metti wala problème mu cardiaque wala nga am battement de cœur bu dépassé état normal wala yu mel noonu del jël guddi gu nekk meew nga tàngal ko ba mu tàng nga wér da alam nashrah 999 wala 666 nga ëf ko ci di ko naan guddi gu nekk balaa ngaa tëdd inchaa allahu méttitu xol bi ngay am yàlla dina ko wàccee bi ahsanil wujuhi wa fi lqurani ma huwa shifaun linnas yàlla dina ko saafara ci nu mu gën a gaawee inchaa allah alam nashrah laka sadraka rek nga ngay wird ko neuf cent quatre vingt wala six cent soixante-six xool bu metti booy am wala crise wala euh, battement de cœur bu dépassé euh, rythme normal boo ko ci jëfandikoo di nga ci am lu kawe sa njortaan la kulli xaal euh, dañuy bañ a sori ndax waxtu wi daf ñuy dab beneen bi kii ne dafa mbokk yi dafa sol gént sol yére bu weex mel ni kuy wër ay bàmmeel sol yére bu weex baax na lawnul baydaai xayrun min lawni sawda couleur bu weex moo gën ci gént couleur bu ñuul waaye nag wër ay bàmmeel day tax loo yóotu mu yéex loo yaakaar doo ci gaaw a jot euh, kii ne dafa am ñaari doom bu ñaari seex mu tudde ki sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kii mu tudde ko sëriñ fàllu mbàkke wa ala kulli xaal fa lillahi alhamdu wa shukru am sa doom tuddee ko na sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yiw la keneen ki nga tuddee ko sëriñ fàllu mbakke saaxibul ijabati euh, xayrun wa rahmatun wa fatxun yiw am na solo lool muy lu jar a bàyyi xel beneen bi ci tegu euh, kii ne dafa gént doomam di dawal oto oto bi daanu ci suuf doom jaa ngi ci biir oto bi waaye mi ngi yooxu pour ñu wallu ko oto su daanoo sa doom nekk ci biir tekkiwul no oto bi moo daanu lay laysal amru kazalik li muy tegtale na mooy dafay jëflante ak ay jigéen kom moom yoo xam ne du ñu déggoo du ñu neexoo tey bu ñu juboo bu subaa dañuy dëngoowaat ah, su tafahum bayna imraatin wa imraatin eh, ñàkk déggoo lay indi diggante jigéen ak jigéen mbokk mi nee na moom dafa gént ay ñay yu bari def délégation ñëw dugg ci biir këram ay ñay alfiil boo ko gisee ci sa biir kër ñu bari lool ñëw dox di dox di dox ba dugg ci sa biir kër jàppal ne ci sa ci sa ñoñ sawaan moo xam min abnaik aw min ahfadik ci say doom wala ci say sët dina ci am koo xam ne kii dinañ ko fal ndombal tànk bu mag ci dundam sawa an anta fi qaydil xayaat aw anta raxalta ila jiwaari rabbik yàlla moo xam dana la fekk ngay dundu wala mu fekk nga wujj sa borom waaye wa ala kulli ak lu mën a am na jàpp ni daal ci njabootam dina ci masa am koo xam ne kii dinañ ko sédde ndombal tànk bu mag ci dundam mooy ay ñay yu dajaloo def mbooloo di dox ba dugg sa biir kër nañ ci bàyyi xel euh, beneen bi ci tegu kii neen dafa gént mu mel ni day tukki euh, waaye daal saa yu jógee pour bëgg a dugg ci li muy tukkee moo xam oto la moo xam avion la du dugg loolu gënul nit soo amee yéene def dara mu mat moo gën mu bañ a mat nga duggoon moo gën nga bañ a dugg nga di ko gis rek te doo dugg euh, du gën nañ ci bàyyi xel kii nee na moom it dafa gént dugg ci benn oto boo xam ne dafa fekk ay bandi waaye dafa ñu ko dara euh, mu daw ba si yàgg ñu bàyyi ko mu wàcc dem ay ay bandi boo leen gisee ci biir oto buñ la songee baax na suñ la gaañee baax na suñ la agressé agression baax na ndax attaab wal mashaqatu wa diqu shadid wal xusnu al amiq yatagayaru faraxan wa surur fi xayaati l insan naqar jafe-jafe metit dafay soppaliku ci dundug doomu aadama nekk yiw bu bari euh, kii neen dafa gént euh, nen saa yu jëflanteeg ay jigéen rek dañ koy wor dafay gis ni daal euh, ñi mu jëflante ay jigéen ñépp dañ koy wor mu jaaxal ko lool nit su fekkente ne da ngay jëflante ak ay nit nga bañ ñi di la wor bëggoo la wor bo sañoon loo dugg wor du ci am baba ba muy jeex saa yoo yëkkatee mbir di ci dugg balaa nga cee dugg jiitalal lii ñuy bëgg a wax muy qul yaa ayyuhal kaafiruun laa ma taabudun wala antum aabiduna ma abud wala ana aabidun ma abadtum wala antum aabiduna ma aabud lakum diinukum waliya diini nga def ko 33 bala nga dugg ci benn soxla incha allahu koo jëflanteel sawa an mu nekk góor sawa an mu nekk jigéen war du ci mën a am ba la ngeen seq jeex ñu bàyyi ci xel bu baax kii nag neen dafa gént ëmb nee mu xool ci jaww ji gis ay kilifa diine yu bari nee na mu dem ci benn médecin daal ci diggante bi foofu la liiñ bi daggee waaye su mënoon dugg daal génne wan ñu wax ñu bokk ma baqa min al xol mi li des ci gént gi la kaana xayran doon na gën waaye daal li gën alal asax ru'yatu shuyuux gis nitu yàlla yu baax yi al saalixiin wal awliya wal aarifina billah xayrun wa taqaddumun wa gis nitu yàlla yu baax yi yiw la yokkute la ala kulli xaal leneen li ci tegu nag moo ñu xaw a eh, échappé su ci mënee jaaraat doon gën waaye daal nañ ci bàyyi xel gis nga mbokk mi dañuy farataal di wax ni am na lool ñun bëgguñu ko ñàkk gu tar wéeri di yaram jafe-jafey àdduna bëgguñu ko ñun bu ñu sañoon naisu xayaatan tayibatan wa raxatan wat mi naanul xal bi doomu aadama bu sañoon day dund dund gu teey gu dal moom la ñëpp bëgg ay saay nag ilahi samai wal ard rabbu samawati wal su la bëggee indil yiw da lay indil naqar bu naqar weesoo mu indi metit su metit weesoo mu indi feebar su feebar weesoo mu indi ñàkk su ñàkk weesoo mu door a faj sa ajo yàlla muy tëral mbir yooyu noonu nañ ci bàyyi xel kii nee dafa gént moom it lu ko jaaxal kii nee dafa gént ku muy bëgganteel nee na jëmm ji mu uuf xale la waaye xam na ni ki muy bëgg moo nekk xale waaye ci diggante bi dafa gaaw a màgg ba mu gis ne kooku màgg noonu moo koy jël pour mu nekk soxnaam euh, mi ngi nekk nag ci biir mariage bi mariage baaxul nit su lay takk nga gis ko ngeen ànd wala ngeen di dox ba moytuwul balaa takk gi di ñëw dina bari jafe-jafe lool wala boog la ngeen waxante ci wàllu takk gi balaa taxaw dina bari lool ñàkk déggoo kon ñu bàyyi ci xel bu baax muy lu solo euh, su ko defee mbokk yi ñu teewlu ko te bàyyi ko xel bu baax waaye dañuy dellu siwaat ba léegi rek ànd ak mbokk yi ci ligne bi balaa ñuy ñëw ci bataaxal bu mujj bi sunu mbokk mi woote di ko laaj euh, di laaj lu ko yitteel lool liñ fi waxoon ci wàllu xam suuna xaaf ak yooyu dinañ ci ñëw waaye dañuy jël ñu ci liñ bi incha allah door ci ñëw 88 628 04 05 wala 88 628 65 65. ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum allo. waaw mbokk mi ñu ngi lay ziar. allo allo waaw. allo allo waaw bisimilah. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. allo. waaw allo waaw ñu ngi dégg bisimilah. allo. allo. Euh, asalaamaaleykum maa ngi leen di ziar ñëpp. yaa ni yàlla nañu ngi ziar alhamdulilah. ñu ngi ngi ziar man daal dafa am benn gént bu ma gént. waaw bisimilah. ma xaw ma jaaxal. dama mm-hmm. gentoon daal nekk ci bërëb bu tëdd ba muy fële Makka. Mm-hmm. waaye bi ñu jugusee ci ci aram bi dama gis kaaba gi mu mel ni dañ ko teggi am fu ñu feneen fu ñu ko teggi ne dañ koy nettoyer. Mm-hmm. place bi nga xamante ne foofu la kaaba bi di nekk. mu mel ni la fa nekk yëpp yëpp yëpp la ñu dindi même carrelage bi carreaux yeeg yëpp yëpp la ñu dindi ba boo ko gisee dafa mel ni lu sax ñax. ñu ne li fi li fi nekk moom la ñu teggi waaye bi ñu yegsee dañ ñu ne kaa leen ngeen barkeelu ngeen def euh, tawaaf ñeent ñeent euh, tour ngeen mm-hmm. barkeelu bi ñu def tawaaf yi ñeenti tour ba noonu lañ koy yëkkati di ko delloo ji mu fi nga xamante ne foofu la place mm-hmm. bon lii daal mooy li ma gënt ma ma lay waxaale aussi ne man aj naa euh, aji woon na aj bi passé mm-hmm. si si laa yeewu loolu mu jaaxal ma loolu nag moo tax ma leen di woo dina di sant ci ñëw léegi incha allah. baax na. ok jërëjëf. Euh, shukran euh, ba léegi ñu jël keneen ki ci ligne bi. salaamaaleykum wa rahmatulah allo waaw. Euh, mbokk allo allo waaw bisimilah. allo. ñu ngi lay déglu. allo. allo. salaamaaleykum allo allo waaw bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw dafa am gént goo xam ne nii. Hmm. laa doon laaj. Hmm. waaw. da wa da ngay wàññi tali bi ñu déggante bu baax. waaw kii koo xam ne xam nga sama borom kër dafa génn àddina. Mm-hmm. sama borom kër dafa génn àddina. waaw. ma gis ko mu ñëw sol lu mel ni armal bu bula mm-hmm. mu summi ko muy ñaari morceau def ko ci beñuwaar def ci ndox di ko fóot. léegi nag yore saabut bu tuuti bi ma gisee muy fóot ma ne ko bàyyil man ma fóotal la ko mais bu may socc du mën a xëpp ndaxte saabu bi dafa tuuti waaye maa ngi koy wax ni ko maa ngi ci wax sama xel daal ne comme am naa saabu bu bari naa jël saabu bi lem ko ci fete ko ba mu jeex après ma géero génne beneen saabu pour fóot ko mhm. waa diggante bi ma yeewu ma bëggoon xam gént googu lan la incha allah dinañ ci ñëw léegi incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf nañ ci ñëw léegi incha allah euh, ñu jël keneen ki ci ligne bi salaamaaleykum. allo. allo. waaw allo salaamaaleykum. allo. allo. allo. waaw bisimilah. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Ah, ah, sëriñ bi jaare naa la. na yàlla nangu. Euh, dama dafa am benn gënt bu ma jaaxal dama gënt ma nekk ci kaw benn bâtiment bâtiment bi jëng moo nekk ci kaw. Mhm. léegi na maa ngi tëdd noonu ci kaw jëng bi. mais di yurlu ci suuf di xool ci suuf ma ne eh, man de su ma amulee ku may jàppale su ma fi daanoo rek du baax. ma seet benn xale bu góor buy dem ma oo ko ne ko kaay jàppale ma koo xool ma ni demaat mhm. keneen ñëw ma ne ko kaay dimbale ma ma wàcc foofu fu muy ñëwee noonu rek ma daal di kii mel ni ma am benn garab bu nekk ci wetu euh, bâtiment bi rek ma daal di jàpp ci rôle ma ne ko a ah, bàyyi ko sax dinaa mun a wàcc ma jàpp ci garab bi nag daal di wàcc mhm. te bëgg naa am sa numéro bi sëriñ bi waaw tee ligne bi dinañ la jox numéro bi léegi incha allah euh, waar waa Régis nañ la jox numéro bi léegi incha allah kon ñu dellu si waat ki ci ligne bi 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 ñu bàyyi xel ci ci ñi ci ligne bi door a ñëw ci bataaxal yi euh, salaamaaleykum allo. allo allo allo allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah macha allah man dama ñaari gént yi ma géntoon mhm. dama amoon ñaari gént ma géntoon waaw ñu ngi lay déglu bu baax allo. sama ah. gént mooy dama dama gént maa ngi nekk ci biir douche di bale douche bi ma jékki-jékki duggaat sama néeg di bale sama néeg tamit kooku mooy premier gént bi. Hmm. deuxième gént bi damay gént di xeex ay rab ay serpent affaire yooyu may dagg seen bopp di dagg yi di dàqanteeg ñi. ñaari gént yooyu laa gént. Mm-hmm. waaw waaw. waaw loolu dinañ ci ñëw léegi incha allah. incha allah. jërëjëf. Ah, mi ngi noonu 88 628 04 cinq wala 88 628 65 65 ñu jël ñeen keneen ki ci ligne bi salaamaaleykum. allo allo allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi siyaare. yal na yàlla nangu ziyaara alhamdulilah. allo. waaw bismillah. dégg bi dafa xaw a faible. waaw ñu ngi lay dégg bu baax nag. waaw dafa am benn gént bu ma laajte. Mm-hmm. waaw mu mel ni dama dama gedd daal man daal li ci ëpp damay xeex rek. da xeex. damay xeex rek waaw. Mm-hmm. ñaari gént la beneen bi mu mel nii dama génn daal am génn jour boo xam ne beneen nag daal dafa ma dàqe daal topp di ma sonal topp ma nag ma daw yéeg ci kaw oto mu topp ma rek. Mm-hmm. waaw ñaari gént yoon daal xam na ma jaaxal. Mm-hmm. dinañ ci ñëw léegi incha allah. ok. incha allah jërëjëf. 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 ma zilna fi intidaarikum xata al an bi hadayn arraqmayn incha allah euh, ñu de leen bàyyi xel ba tey waaye ñu ñëw ci bataaxal yi. yi fi mbokk yi yónnee di ko laajte kii ne dafa gént dem baytullahi l haram euh, euh, dem pour aj nee na fekk kaaba gi ñu déplacé ko fa mu nekkoon mu mel ni daal dara nekkatu fa ay ñaxa fa sax euh, mu jaxal ko lool waaye nee nañ ko daal wër leel wër leen place bi ñeenti yoon euh, loolu li muy tegtale mooy kaaba gi fi mu nekk boo ñëwee fekk ñi déplacé ko nekkatu fa waaye ak lu mën a amit ne nañ la wër ko ñeenti yoon euh, dafay tegtale ne donte dem nga màkk maratan waxidatan dem nga benn yoon màkk mën ngaa demaat ñaareel bi yoon man ngaa demaat ñetteel bi yoon ala kulli xaal nañ ci bàyyi xel am na solo ndax euh, béréb bi nga xam ne bii ci la kaaba gi nekk mu mel ni dañ ko déplacé yóbbu ko feneen loolu lu muy tekkale mooy da ngay jóge sa dëkk bi nga nekk dem beneen dëkk bu bokkul ak boobu mooy jóge fii dem aji ila euh, baytillahi al haram mën na nekk ñaareel bi yoon mën na nekk ñetteel bi yoon sax inna allaha ala kulli cheyin qadir yàlla huwa faalun lima yurid yàlla mën na lu raw loolu ala kulli xaal ah, lu baax la lu am solo ah, wër gi nga wër place bi sax xayrun wa barakatun yusr wa yusrun am na solo lool ah, arbaa maraat yi ñu ngi ko wër sax baax na am na solo ñu bàyyi ci xel bu baax Euh, kii neen dafa gént soxna sinee neen dafa gént borom këram génn àdduna mu mel da ko gént mu ñëwaat sol armalam mu tilim lool mu di ko fóotal boppam mu ñëw jël ko di ko ko fóotal nit soo géntee mu génn àdduna mu ñëwaat mu mel ni ku yo sol yére di ko fóot dafay laaj ngeen génnal ko sarax defal ko ay ñaan bàyyi xel ginnaawam ñaan bi nag mbokk mi dangay def quarante et un xulwa baax na nga defaale quarante et nàkk dugub nakk bu nekk boo koy dànk jàngaaleel benn xul wallahu ahad di am quarantin nakk dugub dinga nga amaale it quarante et un ahad euh, man mu nekk tilka sadaqa fa takunu sadaqatan wasila muttasila ila allazi ila jiwaari rabbihi muy am solo lool ci ki nga xam ne kii tuufiya génn na àdduna nañ ci bàyyi xel euh, kii nee na dafa gént moom it yéeg fu kawe euh, fi mu yéeg ne dafa mel ni ay zinc mu nekk ci kaw ba toll foo xam ne fii sax dafa amoon jafe-jafe bëgg a wàcc mu am ñu ko jàppale ba muy wàcc jàpp ci benn garab mën a wàcc gis nga mbokk yi zinc baax na ndax zinc sunia min xadidin wa kullama sunia min xadidin fa fiihi xayr xayrun fa fiihi xayrun wa fiihi yusrun alxadid wa fi lxadidi manfaatun azima kama qiila fi lqur'ani alazim baada bismillahi arrahmani arrahim wa anzalna alxadida fiihi bashun shadid wa manaafiu linnaas wa liyaalama allahu man yansurahu wa rusulahu bil xaybi inna allaha qawiyun aziz mbokk yi gént weñ baax na moo xam zeng la moo xam beneen xeetu weñ la moo xam weñ bu ñuul la waaye al alal asax li gën a wér daal mooy alxadid wa fi lxadidi manfaatun azima weñ daal gént ko baax na nekk fu kaw it yokkute la ala kulli xaal mbokk yi kii neen dafa gént gént ku ko jaaxal kii neen dafa gént di bale douche nee na bi mu paree génn di bale néegam bale douche ak bale néeg da ngay génn ci jafe-jafe daanowaat ci jafe-jafe du lu gën waaye ñu ngi lay digal mbokk yi baada ixraajiha tayni sadaqatayn nga génn boo génnee ñaari sarax yi fi ma bayna alxamxi wa zurrati ci diggante mboq ak dugub ñaari kilo mboq ñaari kilo dugub jigéen fatiha benn iza jaa nasrullahi juróom-ñaari yoon nanga nga jël sa kurus in kunta fi diqin shadid nga jàng li ñuy bëgg a wax yiw la lay jural mooy bismillahi arrahmani arrahim huwa wa kulu min wa ilayhi nushuru nga di ko def 66 suba midi ngoon doo ñàkk mukk doo xiif doo mar doo tumuranke doo jaaxle sa njaboot duñu xiif duñu mar duñu tumuranke duñu jaaxle huwa alladi jaala lakum al arda famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushuru doo xiif sa njaboot duñu xiif doo jaaxle du ñu jaaxle doo tumuranke te du ñu tumuranke loolu nag day teg tele na wa fi lqur'ani alazimi ma huwa shifaun linnas euh, kooku ci trésor bu mag bi rek nga mën a dem fekk fa muy alquranul karim euh, nañ ci bàyyi xel mi ngi noonu am na solo euh, suñ ci jegee mbokk yi ñu ñëw ci ki nga xam ni dafay laaj moom it ne dafa gént di xeex lu bari lay gént di xeex alxitaal xayrun ida raayta annaka tataxaatal maa rajulin sawaan araftahu am lam taarafhu kilahuma ala xaddi sawa wa fi lxitaali xayrun gént di xeex yiw la baax na am na solo lool euh, benn bi beneen bi ci ni neen dafa gént euh, nag bu koy daq muy daw daw yu métti nag bukki xaj yi yi ñuy lem yi yëpp benn bu la ci dàq rek mbiri seytaane la baaxul waaye nag soo bëggee bañ a gis loolu yépp yàlla musal ci xeet yooyu di ko gis guddi ak yenn cauchemar yu métti yi de leen fanaanoo comme ni ngeen di fanaanoo guddi di waajal seeni tëdd de leen ko waajal noonu seeni bopp dee leen fanaanoo wasamaa'i wa taarix guddi gu nekk bala ngeen di tëdd ngeen jàng ko lu mu gàtt gàtt juróom-ñaari yoon nga door a tëdd innaha suratun euh, mamluatun bill manafia saar la boo xam ne bii dalay aar ba nga tëdd ba yeewu mu assisté la ci ñaari côté yëpp maîtriser la sa ginnaaw ak sa kanam Euh, gardel la sa kër gardel la sa néeg ba ba nga yeewu doo am benn jafe-jafe am na solo muy wasamaay wa taarix nañ ci bàyyi xel euh, beneen bi ci tegu kii nee na dafa gént moom it euh, ci biir loolu nee na dafa gént gént gu ko jaaxal kii nee na dafa gént di football nee na dafa gént di jouer football ci benn béréb moo ki ay xaritam nee na football bi nag dafa mel ni moo ci gën a fees benn waaye ñoom it seen ñooñ ñoo gañe muy laaj afi dalika xayrun am laa istimaal kurratul qadami maa fi kurratil qadami xayrun football baaxul boo ci amee ndam baaxul soo ci amee yokkute ci gént baaxul soo ci bëggee it baaxul dafay indi wàññente wàññente am amu nit muy football nañ ci bàyyi xel dina taxit boo sumbee dara commencement bi day baax waaye boo demee ba ci biir rekk mu commencé am ay sooxe sooxe mooy gént euh, man yastamilu kuratul xadami fi leyli aw fil xulmi Euh, ñu bàyyi ci xel bu baax ñu bàyyi xel ci ligne bi ci 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 balaa ñu ñëw ci bataaxal yi mujj yi incha allah kii neen dafa gént lu ko jaaxal kii neen dafa gént di jàng. alxuraan alxuraan bi fi ma ko doon jànge nag nee na mi ngi nekkoon ci benn bayaal bu yaatu nee bayaal bi li wër bayaal bi ndox la nee dafa ñëw rek lal sijaadaam teg téere alxuraanam ubbi alxuraan ji di jàng waaye nee na daal li mu gën a jàpp daal ci li mu jote jàng ci alxuraanul karim saar bi mu ci gën a jàpp te fàttew ko mooy wa tiini wa zaytun wa tuuri sinin wa hadha al baladil amini nee na moom rek dara la ci fàttaliku loo xam ne lii saar boo xam ne bi jàng na ko ba mu jeex donte sax jàngul saar boobu yëpp am na yeneen yu mu jàng waaye boobu daal la ci gën a jàpp wa tiini wa zaytun baax na baax na di ko jàng waaye li ci gën ci di ko jàng mooy soo koy jàng na nekk diggante takkusaan ak timis wa tiini wa zaytun wa tuuri sinin baax na soo koy jàng it sopp nañu mu nekk ci digg kër gi nga toog ci digg kër gi immaa nga yor sa immaa nga ubbi alquran ji di ko jàng baax na muy watiin wa zaytuni wa tuuri sinin nga di ko jàng waaye adat bi ci gën nag mbokk yi dinañ leen ko bàyyi baaxe ngeen bàyyi ko xel adat bi ci gën ci watiin wa zaytun mooy dix-neuf moo gën ci watiin wa zaytuni doo doonte sax maratan waxidatan fil yawmi doonte benn bés la euh, benn yoon nga koy jàng ci bés bi sax xayrun baax na nañ ci bayi xel keneen ki ci topp kii nee na dafa gént di lekk yàpp nee yàpp wi nag yàpp dibi la yàpp bu ñu lakk la jënd indi ko ci biir néegam mook benn xaritam ñu toog di ko lekk nee na fi koy lekkee jeexagul seen beneen xarit dugg si ñu daldi koy woo mu ñëw toog ànd ñoom di lekk nee na daal lekk nañ yàpp ba mu jeex ba ñu jóg ba dem ba tëdd ci ëllëg sa ba mu yeewoo la door a fàttaliku ne moom ndekete li mu doon lekk nii ci gént la woon muy laaj ma bayaanu zalik aklu laxmi li lekk yàpp maradun xatirun fi jismil insaan lekk yàpp wéri yaram la baaxul bu dee bu ñor ba baaxul bu ñorol bi baaxul yàpp moom benn gënu ci bu ñor ba ak bu ñorul ba yëpp kilaaxuma ala xaddi sawa allaxmu yadullu ala maradin yaram la lay jural sawaan an yatika al marad baidan aw an yatika al marad xariban yàlla moo mën na nekk feebar bu jege mën na nekk buy ñëw ci kanam yi te ak seegul ala kulli xaal waaye ñu bàyyi ci xel Euh, su ko defee ñu teewlu ko bu baax te bàyyi ko xel incha allah euh, di leen wax ni rek incha allah waxtu wi moo ñu xaw a dab euh, ndikoon bëggoon nañu ànd ak yéen incha allah ci ñi nga xam ne ñoo fi yónnee seen i bataaxal bëgg ñu indi ci ay bayaanaat ñu toppal leen ko benn par benn incha allah waaye waxtu yee xaw a xat tuuti rek ñu ngi ciy jégalu bu baax. di ci jégalu ñi nga xam ne ñi dañuy topp saa ci waxtu wi di ànd ak ñun ci émission yi incha allah ñu ngi ñaan yàlla saa su ci waxtu wi euh, wala boog alxames bu jotati ci waxtu wi incha allah dinañ ñëw ànd ak yéen ci seen émission comme niñ leen koy defalee fii kulli yawmil xamis alxames bu nekk ñu ànd ci ak yéen ànd ci ak mbokk yi ñuy teewlu saa su ne euh, di leen wax ni alxames bii di ñëw incha allah. dina dinañu bàyyi xel ci ñi nga xam ne ñi euh, waroon nañ ko mottali ànd ci ak yéen waaye mu xaw a manqué tuuti ndax xat-xataayu waxtu wi ñu ciy jéggalu bu baax a baax a baax a baax di leen wax ne incha allah dinañ ko toppaat ci alxames bii di ñëw incha allah ñun ziyaara mbokk yi ñuy bàyyi xel saa su ne dañu topp di ànd ak ñun ñu ngi ziyaara euh, alaaji Badara Sarr ñu ngi koy ziyaara di ziyaara alaaji Omar Sidibé alaaji Assane Ndiaye alaaji Serigne Saleh Sarr alaaji Isaaxa Sarr alaaji Bachiru Ñaa ñu ngi leen di ziara ñaan ñëpp alaaji Papa Samb euh, di ziara alaaji Cheikh Tidiane Ba alaaji Mangoni Thiam ñoom ñëpp fàtte wuñ leen euh, di ziara ñi nga xam ne ñi ñoom it dañuy topp saa su ne euh, di ngi ziara Moussa Sidibé ci Amérique ci arlem aux États-Unis New York ñu ngi koy ziara moom Moussa Sidibé ak soxnaam Salimatu Dieng di ziara Jëliya Sall soxna ba euh, Alhaji Malick Ba Souleymane Ba Adama Ndiaye Ndiku Fall Mansour sar Maam Lisun Mouhamadou Mbaye Medina Mbaye Mujibu Lay Modi Ndiaye docteur Pouy Aminata Touré Bintu Ñang Bachir Ba ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziara di ziara Alhaji Makhtar Silla moom it nekk New York ñu ngi koy ziara bu baax Makhtar Silla ci New York ñu ngi koy ziara Abdourahmane Bakke Serigne Massamba Rose ci France Elisabeth Sagna monsieur Sagna Mouhamadou Moustapha Yaali ñu ngi koy ziara bu baax di ziara Adja Khadisi ci Jaksaaw Alaaji Malick Fall nekk imam ci Mauritanie ñu ngi koy ziara bu baax Roxiyatu Jaw Soxna Mati Jaw cité des magistrats euh, Alaaji Madiagne Gueye Salima Sem ci Nouakchott cinquième ñu ngi koy ziara di ziara Mazor Jibi Sow marché Dior soxnaam Dieynaba na ba vingt-cinq monsieur Soumaré ambassadeur nekk Turquie nekk Mali eh, ñu ngi koy ziara muy Ibrahim Soumaré ak soxnaam ak seen groupement mam yëpp Mbay Samb nekk New York moom it ñu ngi koy ziara Yaya Sarr ci France eh, Cheikh Bara Fadilu ci Ndindi ak soxnaam eh, Fatou Silla Awa Mbacke doomam ñoom ñëpp ding leen di ziara di ziara Cheikh Sadbu di ziara Fanta Jaxabe yu malaam ñoom ñëpp Aysatu Sow fan euh, Moustapha Sow ñooñu fàtte wuñ leen euh, Yuma Lam ci Sococim Babacar Amiré Ayta Silla ci Caaroy Adja yay Musu ñu ngi koy ziyaara ci Mbuur ay dara Alaaji Pape Galo Badiane ñu ngi koy ziyaara bu baax Alaaji Ngagne Diop di maire Bambilor ñu ngi koy ziyaara nday ba ca dakaar ak so borom këram Cheikh na Soumaré Awa Diaw Abbas Gadiaga Abbas Gadiaga Alioune Nia Aslem Bariyeli Ibou Koor nekk ci Angleterre ak soxnaam Adam Cissé euh, ci Angleterre ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziara bu baax di leen ndokkeel euh, Adja Khady Thiam Seck nekk ministère des sports moom it ñu ngi koy ziara bu baax euh, di leen wax ne incha allah ñu ngi leen di bàyyi xel saa su ne ci waxtu wi di leen wax ne saa su ne dinañ fas yéene ànd ak yéen ci seen émission tafsirul axlaam fi kulli yawmil xamis lépp luñ fi manqué la alxamis bii di ñëw incha allah daañu ko mottali ànd ci ak yéen allahumma rabbi alsamaa'i wal ardi wannuuri wadulmati wadilli walxaruuri ya man shaqa albihaara wa ajra alanhaar ya man rafaca alsamaa bigayri amad wa ya man arsala riyaha nushran bayna yaday rahmatih wa ya man adhara samsa ala sadri samaa wa saqara annujuma ala sadri samaa wa arsala riyaha nushran bayna yaday rahmati allahuma ya man axaata bi kulli cheyin wala yuxituhu cheyun ya man yara kulla chey wala yaraahu ahad la yantahi ilahi ilayka basaru naadirin fi majdi jabarutik irtafaat an sifaati almaxluqin sifaatu qudratik wa ala an zikri zakirina kibriyaau azamatik fala yantaqis ya ilahi ma aradta an yazdaad wala yazdaadu ya ilahi ma aradta an yantaqis laa ahada shahidaka xiina fatarta alxalq wala nidda wala didda xadaraka xiina barratu nufus kallat al alsuna an tafsiri sifatik wanxasarat al aqulu an kunhi maarifatik fa kayfa yusaf kunha sifatika ya rab ya man qaala li musa idrib biasaaka albahra fanfalaq fa kaana kullu firqin ka tawdi alazim salli ala sayidina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 subhaana rabbika rabbi rabbuna wa rabbukum rabbu kulli cheyin rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin thank you